réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam. képp koo xam ne da nga incarné yaakaar ñu utal la pexe sàkkal la pexe doo bokk ñun ñëpp. tous les candidats incarnent un projet d'espérance pour le Sénégal. Tous les candidats qui vont se présenter à cette présidentielle de février 2024, chacun, pour ne pas trop exagérer, est comme une pierre angulaire sur laquelle les habitants veulent bâtir leur espérance. Alors pourquoi ceux qui incarnent ces espérances. Ceux qui, pour nous, se présentent à l'élection présidentielle sont comme des pierres angulaires, le mot peut-être un peu trop exagéré, mais cela vaut la peine pour que vous puissiez comprendre qu'il faut prendre au sérieux chaque fils de ce pays. Chaque fils est un fils héritier du Sénégal. Et donc chaque fils de ce pays, chaque fille de ce pays et héritier et héritière du Sénégal est digne de se présenter s'il est porteur d'un projet d'avenir, de prospérité et de, développement pour ce pays. Alors, ne n'agissons pas comme ces vignerons homicides. borom parce qu'il se comporte comme le propriétaires de cette vigne Sénégal kenn moomu ko ñun ñëpp ko moom kon boog nañu bàyyi képp koo xam ne yow yaakaar nga ne amal nga njëriñ Sénégal mën nga suxali réew mi mën na ko yóbbu fu ko yàlla bëgg mu mu yegg fa mën na ko may mu jur doom yi yàlla bëgg mu jur doom yu rafet rafet ba ñëpp jëriñoo ko bitim réew jëriñoo ko ngela nañu bayyi doomu. jiar kontaanee jox cër mbok aduna jiar kontaanee jox mbok internet c'est la bon TV kona mbokum rewmi ci chaîne chaîne la chaîne de la vérité ci sen chronique comme niñ leen koy defalé saa su ci actualité rewmi mi waaye no sori rek dañuy wax bak bi dooley jeun ndox la dooley saxaar raay la mais dooley site internet chaîne YouTube abonnement la aimer commenter et partager je pense que yene a ngi ci mais gën len ci nek pour gëna gëna gën li nga xamné mom moy taxaway bi gëna euh, partager vidéo yi nak ko am ñaar junni yo may mayal kula neex waye so bëggé dégg-dégg jappal c'est le bon TV de len aimer vidéo yi surtout c'est très important donc ñuy gëna a ñaax nit ñi ci parrainage bi surtout gën len ñaax Ah, donc ñu gën a am fulla am fayda parrainé waaye nag sécuriser seen parrainage waaye nag dañu moytu ah, doublon yi comme ni mu koy waxee ñiy bind nañu bind lu leer bind yu leer te précis bind yu waaw yu tegu fépp nga xamante ni gars yi duñu am benn yoon euh, fu ñuy euh, waaw kuy kuy tëru daal kuy teggee ci ay waaw kon nag gars nañu gën a góorgóorlu ci précision bi ci tur yeeg numéro carte d'identité yeeg et cetera donc ñu gën préciser aussi bagn di vidéo wala ñuy photo fiche de parrainage ah, donc lool tamit euh, mën na indi ay kàllankoor. benen bi ci top aussi euh, carte d'identité surtout dem leen jëli sen carte électeur yi seen carte d'identité yi donc jege leen fi nga xamante ñi bindu woon te jëli seen carte nañu dem taxaw am ci fulla dem jëli seen carte donc lumu laaj ñu def ko fi États-Unis ñu ngi waajal. Euh, mardi incha allah mardi bii di ñëw ñu ngi wàcc pour dem ci consulat ba euh, de 14 heures lay commencé pour euh, jëli suñuy carte ñi nga xam ni tey ñoo bindoo fii jëli seen i carte électeur seen i carte d'identité ndax jàpp gis nañ ni am na ñoo xam ne ñu ngi jëli seen i carte ci suuf ñu leen di woo waaye kër ñàkk jàmm waaye patriotes yi mënaguñoo jot ci seen carte ñu bëgg a dem foofu revendiquer fa daal taxaw ci buntu consulat ba réclamer seeni carte d'identité ak carte électeur fofu aussi dinañ fa le parrainage képp ko xamni bëgg nga parrainer mën nga ñëw ta parrainer go te nekk fi ci États-Unis particulièrement New York mën nga ñëw fofu so ñëwé fofu en même temps diñ fa mëna a parrainer donc ñu ñëw massivement ci manifestation bobu pour mëna réclamer patriotes yi nga xamni ñoo ngi nekk fi ci New York mëna jël seeni carte d'identité ak seen i carte électeur ngeen bisu jongante ba ñu mën a def seen choix librement comme ni ko charte ndey réew mi waxee. gars yi nag euh, tey nag vidéo bi ma leen njëkk indil mooy euh, dama daan réclamer man en tant que Kona te dama koy wax te dama koy gën a wax que ni responsabilité kilifa diine yi ci lii xew ci réew mi donc bu ñu gisee benn kilifa diine bu jël responsabilité am euh, wax ci tolluwaay réew mi wax aussi injustice bi am ci réew mi wax bëgg intérêt wu faagaagal képp koo xamante ni tey euh, sénégalais nga di di di dégager benn espoir ñu bëgg di la faagaagal donc kon bu amee kenn ci ay kilifa diine yu jël seen responsabilité yëkkati seen kàddu wax dañ koy fësal waaye aussi dañu koy dañ koy rafetlu comme niñ koy ñàkkee rafetlu bu ñu noppee ne tekk bàyyeeg les politiques réew mi mooy wan mooy ñu leen di woo ci seen responsabilité ndax jàpp naa ni képp ku nuy woowee kilifa diine taxawaayu Euh, kilifa nga war a taxawee ci askan wi taxawaayu euh, njiit bu mat njiit taxawaayu euh, gidd comme niñ koy woowee mooy ci lépp lu nga xam ne tey mën nañ cee gindi ak nit waaye war nañ leen mën a lor ci loolo war nga taxaw ci leen ko leeralal kon nag suñ ne yëkkati nañ abbe donte nag buñ nee kilifa diine suñu xel ñun ci suñu sëriñ si lay dem wala suñu xel day dem ci euh, tarixa yi waaye tamit wàllu jàngu bi ñi fa nekk diine la ndax diine ñaari diine ñoo ngànk Sénégal muy diine musulman ak diine chrétien kon nag waa jàngu bi suñ ci euh, yëkkatee seen kàddu ñi nga xam ne ñoo nekk kilifa ci jàngu bi euh, wax ci doxalinu réew mi danu koy fësal danu koy rafetlu ndax responsabilité la te responsabilité bi ko jël ci jamono bi dañu koy wane ndax yàgg na noo taxaw di revendiquer quoi kilifa diine yi jëluñu seeni responsabilité quand il le faut wala su wax jotee lu tax duñu wax wala bu nuy wax lu tax duñu wax intéret réew mi wala bu nuy wax lu tax duñu wax dëgg nguur gi wala duñu wax li nga xam ne mooy les faits nga xamné tay loolu mom mom la diiné yépp diglé kon tay suñu gisé ci sunu kilifa abbé bi yëkkati kàddoom wax kàddu nga xamné c'est des faits yoo xam ne na pourtant tudul kenn joxoñul baram directement kenn mais wax na dëgg koo xam ne ku ko dégg xam nga ni li dëgg la kon ñun rek lool rek lañ soxla moy de dire la vérité tel que mu démé wax ko ci ni mu war a demee waxuñu nga xas kenn waxuñu nga saaga kenn waxuñu nga joxoñ kenn baaraam mais fee yi nga xam ne moo am ci réew mi loo doonee doxandéem ci réew mi sax war ngaa am ñemee am responsabilité wax ci waxuma laa nga yor garaat gu toll ni garaatu kilifa diine kon war ngaa mën a taxaw yëkkati sa gàddu wax ci fee yi am li ci baax nga fësal ko li ci nekk lu bon te nekk hors la loi te nekk ci lu dul dëgg nga fësal ko askan wi ak ndaw ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñoom ngay gide parce que bu ñu nee guide rek am na ñu topp sa ginnaaw nga di leen ñoo ñu aussi mën a am repère waaw bu fekkee askan wi lañu ñu tooñ nga jàmbatal leen seen tooñ massawu leen bu dee nguur gi moo tegu fu mu war a tegu nga wax ko recadré ko loolu rek la ñuy doonee njiit waaw kon nag ñu ngi santaat bu baax a baax a baax abbé bi nga xam ni tey moom moo yëkkati ay kàddoom wax te muy responsabilité comme nous revendiquons chaque jour sa présence suñu nous ngeen taxaw danoo nous a faire. donc nous pour libérer Sénégal Nous pour libérer Sénégal war di taxaw parce que xool vidéo bi ma leen di ni Sénégal ci loxo la depuis 12 ans donc ñu ma lan moo war a tax ñu gën a taxawaat gën a takku ngir jéem a libérer le Sénégal. waaw waa APR da ngay xeex si seen biir da xeex ñu ñaa la ñu ñaa ak euh, Omar Sow bu yëmbal ngay dóorante あ動きなら動きなら分からんと思うよもう。Thank you. xale bu jigéen bi door na Youssou Niang xale bu jigéen bi door na Youssou Niang Youssou Niang xool leen xool leen ay waay ay waay li ñaaw na di ay waay li ñaaw na di ay waay ay waay li ñaaw na lii moo am cher affaire ñu ngi noonu xeex bu métti vraiment gars yi yéen a ko gisandoo waa bennoo bokk yaakaar la wala waa bennoo tas yaakaar wala waa kër ñàkk jàmm vidéo bi c'est la énième fois c'est la énième fois ñuy xeexoo ci seen biir di dóorante di rayante di defante lu nekk te pourtant parti bu ñu naan parti Pastef ñu ngi koy tuddee ex Pastef naa fekk bi ci nekk nag ci yenn journalistes yi des fois je les dama leen di déglu ay reer may jàpp quoi naan ex passif. te pourtant euh, dogal la rek décret bu jug la décret boo xam ni ci wàllu ju ci wàllu juridiction maanaam ci wàllu yoon toppaguñu ko ba mu définitive <coughs> toppaguñu ko ba mu définitive waaye gis nga nit ñi sax dañuy iñaan taxaw iñaane nañu taxaw sax di wax passif dañuy wax ex passif waaye man de sant naa yàlla wala boo képp ku bokk passif wala kuy réclamé wu passif wala ku leen di jàppale comme man war ngaa sant yàlla ci loo xam ne dañ ne dañ koo seeyal maanaam loo xam ne dinaa trois mois ci ginnaaw xama quatre mois nee nañ dañ koo seeyal mooy amatul te tey la fi gën a ne tey la gën a incarné débat yi tey euh, parrainage bi rek wane na ko ma ma wax ko keroog rek ma ni dëkk booru gaar taxut a bari gan ndax ku wàcc xam nga fa nga jëm mooy gis ngeen parrainage bi ba mu tàmbalee ñuy wër-wërloo ak ñum waaye gis nga bi ñu jógee gis nga ni réew mi mel mu ngi mel ni parrainage mu ngi doog a commencé kon nag amul benn jafe-jafe ñu ñuy woowee ex wala ñu ñuy wax existé wuñu ndax lépp lu nga xam ne tey baat ñun ñooy yëngal daal maanaam ñun ñooy yëngal nga japp leader bi tecc technique ni nga projet bi nga japp parti bi dessoudre fokh nit tas nga ko tay la fi gëna né tay rek la sénégalais yi gën a ni ndekété on peut pas noyer une poisson manam jeun kenn mënu ko labal te yëngu-yëngu géej yàqul ne doy jeun kon nak lolu dafa jara bàyyi xel waye nak suñu leen gisé ñom ni ñi xeexoowee seen biir mo tax su ma gisee Macky Sall di mer d'une part c'est des de sec. parce que tout le régler sa partie bi nga xam terroristes en pleine manifestation des manifestation pacifique ay mois de juin mois de juillet askan wi génn di bañ di Ils ñuy gis ay pick-up qui génnee ci des partie euh, euh, Benno Bokk wala APR jusqu'au dents ak ay yat ñi ay fusil ñi ay lu nek dugg ci bir askan bi lolu image yaangi fi te image du mus a deñ ñu gis ay nit yu and ak def soi-disant force de défense et de sécurité parce que soi-disant la mono parce que force de défense et de sécurité du and ak nervi du and ak katu ñaawteef ñuy wacc ci ay pick-up di tirer askan wi parti bobu tay ñom ñom ñoo taxaw di dissoudre ab parti boo xam ni mosuñoo werante ci seen biir la preuve tey ban parti moo am sañ-sañu ak taxawaay ak union bi bi bi nga xam ne tey Pastef am na ko amul ban kilifteef tey kan moo gën a doon leader maanaam leadership bi Ousmane ko di woote nga xam ni yow foo joxoñ waxuma la partisan mais sympathisant askan wi yëpp xool foofu parti boobu tey la ñu jël dissoudre mosuñoo werante seen biir te xoolal ñaata leader ñoo nekk foofu ay Birame Souleye ay Abbas Fall ay El Malick kii Marie Sagna mais bu ñu nee bu Ousmane nee kenn la kooku la kenn mosu leen gis ñu werante ñooñu la ñuy taxé de violent ñooñu la ñuy taxé ne dañoo bon te pourtant borom mer gàddu bi fii la ñu fekk fii la yor mer gàddoom génn ci mbedd mi si bu nekkul woon démocratie tey mënu ko ka àndal pa bi yoron assemblée nationale Moustapha fagnas yor jakarlo ak assemblée nationale doy des actes de manam ay ñom dañoo woné ay actes de violence yo xamné nit yi image yi sont là tay amul ben membre Pastef buñ mës gis waxuma la waxuma la sax membre membre yu magi ay ñom Birame Souleye mais membre Pastef simple la buñ mës gis ñu reconnaître na ki membre Pastef la reconnaître ni si bureau bi la bokk mu yor lenn luy violent wala mu yor lenn luy loo xam ne tey jii mel na nu mel ni Moustapha Niasse li mu yoroon ak borom mel gàddu bi te loolu yàggul les images sont léegi ñooñu la ñuy taxé de terroriste de salafiste de de mouvement euh, insurrectionnel ah dañuy bëgg a taal réew mi te xoolal ñuy tey même ci seen biir dañuy violenté maanaam imaginer ñuy tey ku taxawoon seen biir ne leen Macky nangam dañ lay parce que ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk Macky Sall ña ngay reyante seen biir imagineel kon ku taxawoon seen biir contre Macky Sall nan lañ la war a def donc kon yii yëpp ay tappale la te dañoo bëgg a jël fen teg ko ci kaw dëgg fen nag mën naa jël ascenseur mais dëgg chaque jour mooy mujj te lii lépp boo gisee ñu koy wane pour gën a wan Sénégalais yi que ñii ci ay caaxaan lañu ne Macky Sall bu ne euh, euh, celui xawma qui veut brûler ce pays ou mettre ce pays en chaos me trouvera dans dans mon chemin xawma vous vous trompez yow ce cœur gi mënoo ko régler yow ce cœur bob amoo fa unanimité mon ko régler ñi ngay rayante seen biir violence boobu mënta régler sa biir cœur depuis 2012 ba tay fu ngeen daje xeexoo kon bu la Sénégal yaakaaré ci stabilité non Macky il faut que nga jéem a régler sa kër parce que da nga am ay cuisine interne gis nga ñi sénégalais yi nga jàpp singile leen Pastef bi nga jàpp bëgg leen a terroriser sonal leen yow da ngaa am lu la doy sëkk mooy sa parti bi munoo ko régler kon boo nee da ngay régler Sénégal surtout nag moyen de trois mois naan ay eh, jusqu'à avril euh, ku fi bëgg a yëngal kenn yëngalul fi mu toll nii yaa bëgg a yëngal mais ñun yëngalunu dinañ di ngay dem élection force ñu duma force nga takk say bagage force loolu la ñun foofu lañu nekk chaque chose à son temps yëngaluñu noppalal sa bopp ku fi yëngal ah ki met sa pays en chaos chaoswuñu yow def nga réew mi chaos bu yàgg réew moo xam ne ndaw yu fi juddoo yaroo fi mënatuñ fee toog ñu ngi dee ci géej gi ñu ngi ci ñi ñu ngi dee ci kaso yi ah kenn bëggu fee toog réew moo xamante dañuy rey ay nit du mujj fenn réew moo xam ne dañ naan plus de deux cent et quelques jeune dee nañ ci géej gi sa suba suñu tëgg làmb ju mag réew moom bi mu nekkee ci kaawoo du tey réew mi moom ci liñ naan volcan bu bu bu bu buy nelaw la waaw donc kon réew mi def nga ko kaawoo depuis mars de depuis mars deux mille vingt nga def réew mi ci kaawoo juin deux mille vingt vingt vingt trois nga gën ko confirmer rey ay nit kon mënatoo def plus que mal. mënatul Sénégal mënatul nekk kaaw bu ëpp bii nga ko teg kon noppal ñu ñun ñoo xeexul ak yow fi ñuy xeexee ak yow fi mu toll nii leer na muy le vingt cinq février waaw parce que lépp luy wàllu yoon xam nga am nañ ci ndam yàlla may na ci ndam soow ko nga dëgg sa tànk le vingt cinq février incha allah ngay comprendre xeex bi foofu moo des waaw kon foofu lay gën a attirer attention patriote yi ñu gën a taxawaat gën a focusaat surtout waaye gën aussi xam ni li ñu teg yëpp yàgg naa am si àdduna ak tooñ yàgg naa am mais Macky Sall moom euh, li muy def dafa ëpp ñu neexul nag parce que dàq gor sax jaadu na mais dax daxee amu caw yoon wolof Njaay nee na dàq gor jaadu na mais dax daxee amu caw yoon mais ngeen xam ni moo leen gën a sonn moo leen gën a jaaxle moo leen ëpp problème xolam neexul bu ngeen ko gisee ni muy defee sax ngeen xam ne yéen a ko gën a nekk à l'aise parce que kuy tooñ du am jàmm mukk kon tam Macky Sall tooñkat la moo tax ma koy wax ni borom taatu yu tàkk kenn mënu ko sàkkal tubay te moom day taatu yi day tàkk fi mu toll nii moo tax mun mënta am jàmm même ñi mu nekkal dalay dal seen kaw ku bëgg a dee nag ak ku bëgg a tuxu kenn mënul dëkk ak moom moo tax nañu focusaat gën a menceewaat gën a nekk autour de l'essentiel taxaw taxawaayu dëgër déglu comme niñ koy waxee déglu rek déglu leader yi déglu Ousmane Sonko fépp fu ñu joxoon ñu nekk fa foofu loolu rek moom moo des fi mu toll li ci des yëpp instant bii nii li gënoon a metti romb nañ ko kon man loolu laa leen di invité di si invité sama bopp di ci invité patriote yëpp di wax ni ku am ñaari junni yoo maye mayal ku la neex mais soo bëggee dégg dégg jàppal Sénégal TV gën a abonné gën a partagé jaa ngeen jëf.